na président présidentielle baa ngay jublu ñoom opposants yi di xëppante asib ci seen biir le mandat yéen kaay naan ma déet Bougane Gueye Dany ci boppam moo daal di dal nag ci kaw Khalifa Babacar Sall ba ni ngalañ Moussa Taye ci yéen bi naan ko ak loo mënti wax tamit ñun duñu ay workat kat kaay bi naan ko déet Gueye kay moom fan yi ñu génn yéen ci boppam la daal di jël di yakk yekk Khalifa Babacar Sall nag ketembe ci réew mi le mandat naan tey laa lay wax nag lan moo waral lii nag am na koo xam ne ba ni sos yeewi askan wi ma nga taxaw ca jamono ban koy sos nag moom Khalifa Babacar Sall daana daanaka moo daan wiccax gësam génne Bougane Gueye Dany ci coalition bi bokkoon na ci ñi nga xam ne bëgguñu woon sax Bougane Gueye Dany jege leen moom xaaf nag njortoon ne moom Bougane Gueye Dany mi da doon liggéeyal président Macky Sall Khalifa Babacar Sall ba tey jàppoon ne Bougane Gueye Dany bu duggoon ci coalition bi façon si lëkkaloo ak Ousmane Sonko dana compliqué ci ñoom ndax ñaari ndaw lan yoo xam ne ay jeune lider lañu seen bari wul woon waaye tam bari woon nañ xët amoon fi te ñeme woon wax dëgg ñu doon jël ay combat yoo man ni la lépp luy système day daal di tàbbi géej fa yàllaaxu te loo ci manti dégg njiital gëm sa bopp xamoon na ni la xaaf def ba jagat-jagatee ko génnee yeewi askan wala toogaayam neexu fa woon lii dina ko mës a def war Ousmane Sonko moo tax mayu ko dara di ko attaqué saa su ne te xam nga signature sous réserve ba nga xam ne ña ngi ko doon laam-laamee ci réew mi ñàkk wóolu woon xaaf moo ko waraloon ndax nag fu mu toog daan xam le ni xaaf daal daanaka génération lëmm la daal di war élément yooyu yëpp le mandaay wax de nee na moo tax bugaan mii di ci kaw xaaf saa su nekk waaye tam leneen am na li gën a tax nag dal ci kaw gi moom moo di xeex système bi système boo xam ne daanaka xaa fekkee na lépp bëgg bokkaat ci ndaw ñi nga xam ne ñooy soobuwaat ci yore réew mi géy nag lii la bañ ne xaaf kay moom ak système bi nan nu abal juróom fukki at ñi ngi jiite Sénégal sunu sunu bopp ci jiite gi ndaw yi tey la ñu gën a xaat di gën a ñàkk seen yaakaar di gën a tas ci réew moo xam ne ñoo ko bokk ak seen i ñooñ te xam nga coow li coow li mooy lu ñu mën a yootu 2024 ñu mel ni xaaf taq ripp ci système bi buñ leen fi jëlewul fi nekkoon moo fi nekkaat soppite du am l'évidence yéen mel ni kuy dëggal le mandat naan kon xam nga Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany ñooy ndaw yoo xam ne ñoo mës a xeex système bi di fippu mani la di wéqu ngir li fi nekkoon juróom fukki ci ginnaaw man fee jógee tey nag moom Ousmane Sonko ci boppam daal dinay àgg teer ñu fexe ba jagat jagatee Ousmane Sonko tàbbal kaso Sonko nekk ci xiifal goo xam ni maar day taali Bougane Gueye Dany nag war a jiite résistance bi l'évidence yéen kaay naan kon bëgg ak bañ moo fi ne de ndax fi mu ne ak fi mbir yi toll loo ci mënti waxit résistance résistance bi moom Bougane Gueye Dany moo koy jiite critique yéen kaay naan kon moom président Macky Sall ma nga ca peggam waaye Sall nag war a fal kii doon buur ci réew mi moom président Macky Sall du yem ci tabub candidat coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall waat na ne dina tax ripp ca kay falu ci réew mi te kay ci réew mi Sall ne mooy ki nga xam ni moom lay tabb ci audience bi nga xam ne nag def na ko ca palais bak alliéem moom jiital Benno Bokk Yaakaar xamal leen ni bokkul bokkaanul génne na ci boppam waaye moom président Macky Sall moo cay tax kay moom président nag moo nar a fexe ba kamu tabb daal di taxaw ci réew mi le point yéene naan kon fi ne daal ci tabb gi Amadou Ba daal moo daal di taxaw ca njom mbaxtal la ndax nag loo ci manti déggit la nga xam ni mooy tax ñu mën a tabb lépp féete ci moom gaa yaa ngi koy xeex nag di ko galgal waaye le point naan maan Amadou daal mooy doon candidat bu président Macky Sall l'observateur naan maan Serigne mbub tamit candidat la moom Serigne Mboup naan dama bëgg nekk candidat ndongo daara yi ci réew mi nga xam ne nag ndongo daara yi daañu gis seen bopp ci système bi ndongo daara yi mën a bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxaw ci combaxtalug réew mi fa ñuy jëlee ay dogal ci réew mi ndongo daara yi man faa nekk sëriñ bu ba ko wax direct news naan man sëriñ Moustapha Sy it candidat la moom sëriñ Moustapha moom mooy candidat bu pur l'exclusive yéen kaay naan man Abdoulaye Sylla mooy candidat bu Touba ay mbàkke mbàkke nag daal di koy ñaanal ne ko doxal nekkal candidat gannaaw sëriñ Abdou Karim sëriñ Bass Abdou Khadre sëriñ Mouhamadan daal dinay ñaanal Abdoulaye Sylla njaboot ak sëriñ Abdoulaye Khadre war ci dugal seenug loxo waa grand place naan man ndigal la amoon atub 1988 te njabootuk sëriñ Abdoulaye Khadre defoon ko day daañu ko defaat bi yoon ci Abdoulaye Sylla l'observateur mel ni ku naan man présidentiel yi daal neex na te jotagul l'enquête quotidien naan kon booba ña nga xam ne ñoo nekk ci justice ña ngay daal di dal ci kaw ñi nga xam ne ñoo leen di ñaawal moom Chimère Diouf ñu dalalaat ko ci kaw union des magistrats bu Sénégal Ismaïla Madior Fall seen njiit nan leen affectation yi ngeen jël jàppee ko ni ko ay daan bàyyi leen ko Ousmane Chimère Diouf njiital UMS ni consultation à domicile yi na askan wi nga xam ne ñooy dal ci kaw justice nañ ko bàyyi ndax nag kenn laa la wax kenn koo mënti doon mënoo taxaw ci combaxtaluk justice ci réewum Sénégal libération yéen kaay naan man justice ci réew mi daal mi nga am ci ñumi muy dal ba tax xam nga coowal branco jeexagul njooguloo xaritu maire bu sàngal kam ba ñu jàpp la moom tamit section de recherche jël si na ko xaaja guddi Yacine Diagne bu mochi daal nañ koy jàpp yóbbu ci garde à vue deux minutes pour lire l'essentiel daal dina maître Ngagne Demba Touré dinañ koy wër ca kenn xamul fu mu dëkk waaye gaa yaa ngi koy wër woon gannaaw faatu gu métti nga xam ne am na ca Fass booy lu ëpp juróom benn fukk ci seeni doom daal di faatu suux ga amee ca Cap Vert ña nga xam ne ñoo ca daal di mucc niki noonu it néew yi niki tey lañ leen di jébbal seeni mbokk l'observateur naan ay téeméeri téeméeri doomu réewum Sénégal ñi ngi des fi mu ne ci désert bi di xool nag nu ñuy def ay pexe ngir daal di leen di indi tribune yéen kaay naan maan Amadou li njiital akile ma ngay wax nee nag mënuñoo defarum réew di jël ay entreprise di leen noggatu di jël ay entrepreneur sénégalais di dompat ak di noggatu xal seenug liggéey ak itam di wàññi seenug doole moom Amadou le naan réewum Sénégal fi mu toll ak ndóol gi nga xam ne ñi ngi ko fiy nemmeeku waaye itam jaxannama gi nga xam ne xale yaa ngi dafa fekk ne xale yi gisuñu yaakaar ndax entreprise yoo xam ne ñu ngi leen di naj ay entrepreneur mani la di wàññi seenug doole ci seenum réew yéeni kaay bi média bi naan man bul dem desal ci man ma xamal la nag réew maa ngi bëgg tukki ndax mbir yu ñaaw coowal mërs daal amati na ci cité mixta fukki xale yoo xam ne nee ñu ay borom ñaari tur lan góor jigéen ñoom la ñu bett nag ñuy sëy ci seen biir ci cité mixta gee jàpp nañ leen ñoom fukki góor jigéen yi ñu bari ci ñoom bañ leen xoolee ay tailleur lañu yéeni kaayib dee média bi naan man ci limu fukki gi ka gën a mag ñaar fukki ak juróom ñeent la am ba ñu leen jàppee fekk nañ fa ay lubrifiant bi nga xam ne mooy rataxal sëy bi fekk nañ fa ay préservatif tribune yéeni kaay naan maan fekk nañ fa ay slip string yoo xam ne ngir góor la fekk nañ fi loo xam ne aw jigéen la waaye dañ koo defar artificiel la tey jii yéeni kaayib dee média bi naan maan daañu leen présenté procureur